amaana ñoo la gën a nekk ci réew mi parce que kenn tukki wu ci dégguma ko en tout cas te gisuma it ku ci taxu ñu kon ñoo ngi Sénégal ba tey mais nag yeewi askan wi euh, dañuy jàpp ne am na malaise quand même te mm. malaise boobu c'est bien avant la présidentielle parce que mm. yeewi askan wi indi woon na fi coowal kan moo signé communiqué bi dégg nga gis nga fi ñu génnee fi ay communiqué ba ñenn ci yeewi askan wi ne lii de conférence des leaders du ñoo ko dogal am ñeneen ñoo xam ne dem di poser la question à kan mooy génne communiqué yi au sein de Yewwi parce que ñi ko jiite amul benn yoon daje yu ñuy def ba yenn communiqué yi war faa tukkee kon nag tey jii bu continuer dañuy jàpp ne yeewi askan wi ci la mu doon nekkoon avant présidentielle bi ci loolu la wéy mais nag liñ naan mën na doon xali xalundeef maanaam le fait que tekkaaral bi am na c'est pas pour dire que yeewi tas na parce que tamit yeewi am na clause bu leen boole woon mm-hmm. mu di nañu ànd ci législative nañu ànd ci local présidentielle ku mën a dem nga dem damaa jàpp ne anam boobu xëy na ñu ngi ci inscrire ba léegi donte nag cassure am na ci diggante bi ndaxte bu fekkee ne taxawu Ndakaaru moom yaakaar naa ne c'est une rupture consommée entre que du ñaari parti yooyu rek ñoo sekk yeewi am na ñeneen ñu ci bokk mais bu dee ñaar ñooñu moom mun nañ jàpp ne rupture am na ko parce que dem na sax ba post yu ñu waroon a bokk ci mairie bu Dakar ñu dindi ko ci loxo Pastef si diggante bi donc dem nañ ba sori ci defante léegi nag ndax loolu noonu dina impacter ci ñeneen ñi euh, je ne parce que bi loolu amee am na ñu jël parti parti bi ñu jël mooy rester dans yeewi donc euh, ci benn côté bi dañu ànd ak Pastef mhm. daal di beddeeku ci taxawu Ndakaaru donc damay jàpp ne mhm. yeewi boobu àndoon ak Pastef ak lu mën a am am mun nañoo continuer ak Pastef ci mhm. yeneen échéance yi ñu jëm mais sinon taxaw et e Pastef moom gëw ma ne ànd bi dina mën a nekk ci politique. tey ba tas la. président Lamine Gueye est-ce que nekkul coalition Diomaye moom moo muur aujourd'hui euh, ce qu'on appelle la coalition Yewwi Askan Wi. waaw mën nañ ko wax parce que aussi Yewwi quoi qu'on dise judd na am na pàcc bu am solo quand même bu mu joué ci histoire Sénégal ci local yi gis nañ ay localité yu bëri. yu am solo yoo xam ne euh, dafa tàbbi woon ci loxo yeewi hmm. ñu ci jógee ñu fexe yokk ci wàllu Euh, également ci élection législative yi ba yóbbu sax euh, pouvoir bi euh, presque euh, ñu am euh, daanaka talonné pouvoir bi presque majorité mmh. donc ma jàpp ne loolu ci période boobu joué nañ quand même benn rôle bu am solo c'est vrai que nag ñoom waxante woon nañ ne présidentielle ku nekk na nga demal sa bopp mais dafa mel ni présidentielle boobu après moo indi féewaloo bi parce que aussi yeewi bu ñu koy wax dëgg c'est Pastef c'est Taxawu et puis peut-être ak euh, un peu pur parce que ñoom ñooy parti yi ëppoon doole tey jii Taxawu ak kii euh, soxna Ndeye Fatou wax na ko ñëpp xam nañ ne est-ce que sax mën nañu nekkaat ensemble loolu kay la ñuy laaj hmm. parce que tamit euh, am na divergence boo xam ne yegg na ci niveau boo xam ne ce sera pour ñu pour ñu toogaat li am solo mooy ñenn ñi nekkoon ci yeewu kay xanaa dañ naan lan la ñuy xaar peut-être euh, pour jël position est-ce que ñoom dañuy dem continuer ci wetu pouvoir bi <laughs> wala boog dañuy jël seen courage à deux mais pour aller carrément dans dans l'opposition peut-être lool la ñuy xaar pour taxawu lool la ñuy xaar également pour PUR. très bien ñu wax ay ambassadeur de la paix yu ñu tàggat ngir ñu mën a jouer seen rôle yu am solo jëm ci wàllu leadership ci seen ay communauté promouvoir itam lu ñu duppee cohésion sociale en tout cas loolee ñu ngi ko tënk ci ab projet njiitu jàmm wu fondation internationale pour les systèmes électoraux daal di initié projet la bu xam ne li ko tax a jóg na ci engagement civique ak participation démocratique euh, jëm ci euh, ndaw ñi ñu teelu ci ki nga xam ne moo di Adel Habida université peuvent euh, daara yu kawe yi di université yi léeg-léeg tey doon euh, bërëb yoo xam ne day tàng lool moo tax ñuy tàggat euh, étudiants yi ngir ñu mën a am xarañteefu di gérer ay xët-xët soxalul kese wàllum élection ndax léeg-léeg dañuy nemmeeku ay fitna doqee ko ci ay waxtaan wala ay tension yoo xam ne dañ koy nemmeeku ci campus yi di maanaam université yi mbir mi nag yamale ñu ko ci université bu dakaaru mbooleem université yi nekk ci Sénégal. programme bi soxal na ko mbooleem faculté yi dañuy liggéey ak ñoom waaye itam liggéey bi day am ay euh, représentant société civile bi ay étudiant yëngu ci wàllum diine ak étudiant yi nga xam ne sax dañuy yëngu ci wàllum parti politique ñëpp lañ ci boole ñu teg seen yoxo ay mécanisme yoo xam ne wàllum dialogue la ngir ñuy mën di saxal jàmm ci fañu ne. Nanko Bakayoko moo tekki ay kàddoom ñu dem euh, ci euh, agent fonds d'entretien routier autonome du département de Goudomp ci ab janag woy taskul xibaar yi ni ki tey suba daal nañuy dikk ci fukk jàpp fukk ak ñeent ci ay weer yi nga xam ne euh, toog nanu ko jotuñu si seen i ay salaire arriéré salaire yooyu moo leen neexul dara te ñu ngi sàkku ci état bu Sénégal ñu ànd ci joyant yi ñu teewlu ci kàddu wax ci seen kàddu di Seeku Jamanka superviseur la ca commune bu Niaga dañ fay daje pour situation bu ñu nekk jafe-jafe ñu nekk dafa métti ndax di nga liggéey fii ba 14 mois 10 mois ba 11 mois ba 9 mois amoo salaire loolu métti la tey da ngay génn sa doom soxla dara ummi bu mu feebar pour nga faj ko problème la ñaan nañu état bi jàppale ñu si bu baax surtout président bi ak euh, premier ministre am bi ak ministre du transport bi nañu jàppale si liggéey bi ndax ñu ngi liggéey chaque jour loolu tax ñu bàyyi yaa ngi gis nii sax tey mu ngi taw mais ñu ngi si lii parce que lu tax métti métti bu ñu nekk la vraiment cette situation bu ñu nekk nii dañu ñu jàppale ñu si ñu génn si ndax ñu fàtte ko am nañ directeur bu bees ñu ngi ñaan directeur bu bees bu mu mel comme beneen bi na nekk koo xam ne wax dëgg yàlla mu ay responsable lañu ay père de famille lañu feebar wax dëgg yàlla pour faj ko sax problème la léeg sax da ngay nii pour jàll fenn sax benn bitik nga am problème jàll ndax lan ndax ay bon yoo xam non payé loolu wax dëgg yàlla dafa métti trop si ñun nañu jàppale ngir yàlla yonente bi xam nañu ay père famille lañu ñu suñu sañoon wax dëgg yàlla nag ñu yokkal ñu affaire yi ñu si situation bu baax am contrat yoo xam wax dëgg yàlla yokk salaire yi dina nekk loo xam ne lu ñuy njëriñ njëriñ population presse sénégalaise ndax am autorité yu yees yi dañ leen a teg bët laaj bu nu euh, sample en tout cas euh, li koy firndeel bokk na ci euh, pression fiscale bi ñu nekk di dund jamono ñu àddu ngeen di teelu rax ci dolli ay société yu état yu ci mel ni LONASE bala wala sax port autonome de Dakar daal di décider wala jël dogal dakkal mboolem seen convention yi nga xam ne amoon amaloon nañ ko ak presse boobule ñu sukkandikoo ci président bu patronat de la presse mbir yi li muy nuru mooy faagaagal euh, këru taskatu xibaar yi surtout euh, këru presse yi te li koy wane mooy jëf yu ñuy jëf jamono ji te loole faw ñu bàyyi ko teg ko ci suuf lu ko may euh, dina yéeme lool ci këru taskatu xibaar yooyu le Mamadou Ibra Kane ñu la ko. situation économique bi nekk au niveau des entreprises de presse dafa jéggi dayoo ba non seulement am na ay licenciement mun naam dañ ko dul dégg rek am na ay arriérés de salaire maanaam entreprise bi mënatul fay ay travailleurs am am na obligation yu nga xam ne entreprise bi dañ ko war a remplir comme retraite lu ñuy woowee IPRES wala lu mel ni caisse de sécurité sociale dégg nga li nga xam ne moom moo yor lépp luy accident de travail ak yooyu entreprise de presse yi mënatuñu remplir seen obligation yooyu actuellement amuñu ay ressources par rapport à la publicité te publicité bi ñu ko akimoo mooy ñu féete si nguur gi wala jege ko ñaareel bi entreprise de presse du entreprise commerciale comme n'importe quelle autre entreprise commercial parce que dafay remplir li nga xam ne day am njëriñ pour citoyen sénégalais pour Sénégal donc doo leen fayloo ay impôt yi nga xam ne day jaay par exemple oto impôt yooyu euh, lay fay doo ko imposer comme TVA bi nga xam ne n'importe quel commerçant euh, lay mi ngoog Ndeye Fatou muy constat bi ñu def njàngat li ci wàll wi xam naa des na tuuti euh, jël say bagage day daal di jot wutali ca tool ya maa la wax lii dem bay gerte waaw fa lañ mën a jëm ndax dafa mel ni mbir mi grande offensive contre la presse sénégalaise la mhm. ndax boo xoolee depuis un bon bout de temps lan moo jiitu fisc ñu ne déeta waay ñuy dagg convention yi mhm. ñuy wax ci loolu pareeguñu ñu ñu ne nag léegi cahier de charge yi oui des conventions déjà signées donc pour man loolu rupture abusive de contrat la ndax boo xëyee di mettre fin à des conventions dangaa am loo reproché partenaire bi nga xamante ne mu nga ko signal su fekkee dafa am ay manquement ci li mu la waroon a jox comme prestation nga mën a sukkandiku ci loolu ne convention bi dinaa ko arrêté mais mënoo xëy rek arrêté des convention comme ça unilatéralement euh, unilatéralement sans nga waxtaan